هو سيدنا طلعيذ لنا لإجابته أما بعد السلام عليكم ñu ngi leen di nuyu ñépp ñi ñuy déglu ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci bitim réew ñi ñuy suivre ñëpp ñu ngi leen di ziyaare waat leen nuyu ci gudd ci guddi bii nga xamee ne burda mubaarak la nga xam ne bés yi fi jaar yëpp dañ ko doon waxtaan ak di ci tagg boobaak léegi mu ngi ci démb bërki démb bërkaat ci démb fan yi yépp ñu ngi ci ba tey jii tey su subaa la burdu bi jeex te tey jii insha allahu am ngeen gan goo xam ne gan bu mag la tey mooy taxawu bés muy Sëriñ Mbay Fall Njëgéen mooy waxtaan tey te du génn ci yonent bi ndax liñ fi wax yépp ba ñu commencé ba tey génnul yonent bi sallallahu alayhi wa ñu koy waxtaane ba tey ji sante ko yàlla ñi ko fekke woon daaw ah ren tam fekkewaat dañ ko kon ñu ngi gërëm yàlla bu baax ci fekke googu ak jëfinu waat dafa mel ni nag ren moom tabaarakallaahu nit ñi yëg nañu burdu bi ren daal la nit ñi gën a ñëw ci daaw dafa mel ni dañuy am conscience nag ci burdu bii nga xam ne moom lañuy def fii dafa mel ni dañuy gën nag yëg yonent bi ndax burdu bi yonent bi la burdu bi yonent bi rekk lañ ciy wax moom lañ ciy tagg kon nag ñu ngi dalal képp koo xam ne ñëw na fii di gan walla nga nekk ñàkk nekk gan sunu bàyyi alaaji Moodu Saaj ñu ngi koy ndokkeel bu baax ci ñoom ci teewaayam fii fa tabaarakallaahu ak góor gu sumaare ñoom ñëpp ñëw nañu ak mag ñi fa tabaarakallaahu ñu ngi leen di ndokkeel bu baax sëriñ salaam tan mu ngi fi toog toogal fi mag ñi waaw toogal mag ñi su ko defee ñoom Eliman Dieye ñoom Cheikhu Cheikh mar Njëge nag ñoom Njawara ñoom ñëpp ñëw nañu waane ñu nga toog fële ma ne leen ah yéen de seen place bi ngeen daan toog toogu leen fa ñu ne foofu yëpp dañ ko occupé ma ne ah tey ji moom moom tabarakallah yalla na continuer nii yalla na barkel barkeel yalla yàlla na yàlla nangu lépp sunu woykatu bi nga xamé ni mu nga joggé ba Ndar Cheikh Banda Banda sen ñu koy ndokkel bu baax di dalal di dalal bu baax baax baax di ñaanal yalla ma biiri ñëwaat na tey démb bu ñëwul waane mu ngi fi docteur Fara mu ngi fi Abibu Gay mu ngi fi mag ñooñu ñëpp léegi ñooy magi pénc mi egsi nañ tabarakallah ma fàll ma njaay faal ñoom ñëpp ñu ngi fi kon yàlla yàlla doon sutura yi kon tey ji incha allahu mbay mooy waxtaan ci lan lay waxtaan ci xasaisu rasul moom lay waxtaan insha allah xasaid xasaidis nag mooy li nga xam ne moom la ñu jagleele yonent bi may yiñ ko jagleel waaw particularité yi waaw loolu la mbay di waxtaane tey fa tabarakallahu kon تفضل وأنت مشكور الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سير الحق بالحق والهدي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم بوك جلدي غيناو بنو مشلو تي شيطان نا خامني لو ياق موكو ياق يالا ني يالا مسل تي موم يالا ار مسل دوغي تي موم ba lépp lu ñu def lu baax yàlla def ñu ci yiw commencé ci tur borom bi nga xamante ni ñaan nañu yàlla lu ñu dugg mu barkeel ndax lu yonent bi wax barkeel na rawatina lu mu digle barkeel na sant yàlla it bu baax ci fekke gi ñu ko fekke ak mën géeg tal gi di delluwaat di sant yàlla ci yàlla ni mu programme ndax xadara bi day bërëb bu doy waar boo xam ne yàlla mooy programme ay mbiram li ngay namm ak li am bokkul xadara bi dafa saf yàlla trop ba it ndonte dangaa sant santu kër gi bu yàlla raxul ci yow doo fi am dara waaw ndax bari na ñu fi defaroo bokkuñu ñoom tarixa ci lu wér kon yàlla jooju lañuy xool ci li jot a am ak ci li ñu ne di ñaan ci yàlla lépp lu ñu fi wax yàlla na yàlla li góor gu mag a daan wax alaaji Mouhamed Ndiéguène loo am yàlla yàlla lu ñu ñàkkit yàlla na ñu am yàlla ndax ku am yàlla ñàkkoo dara te it coolee fi ne rek mais affaire bi yàlla rek la waaw yàlla rek la nuyu bu baax it nag fi may liggéey ci cees di Prestige TV ne fa ñëpp xam ñu ràññee ñu ci ci wàllu diine ak ci wàllu leeral diine di nuyu bu baax suñu DG bi mu yëgee mbir mi tey dafa feebar mu yebal Modou Aïssa bi sëriñ Touba bi sëriñ Modou Kara mu ñëw yabal ko ci bërëb bi ne ko taxawal indi fi ndox mu bari ndax day liggéey ci wàllu ndox caali oo yàlla dogalit tabaarakallaahu mu jiite Cees ca kanam di ñaan ci yàlla yàlla ko yàlla jàppale ci lim bëgg ci wàllu Cees yàlla ko yàlla def maire bu ko yàlla defee maire mu jigee yàlla def ko président de la république yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def ci barke yonent léegi nag ñu dugg ci waxtaan ñu war a waxtaanee xasaa'isu rasul mooy xus lu ñu jagleel yonent bi bu dee ci tubaab na les particularités imam wala spécialité imaam jagleel nag ku nekk am nga loo jagoo alaaji iliman ji ku ne am nga loo jagoo waaye jagoo bi nag daa am ku ñu ko jagleel ak ku koy jagle ki koy jagle mooy yàlla mooy tànn ku ko neex mu def ko lu ko neex bërki démb laa dem ci sëñ Omar borom sifatulaayi borom kalimatul xaq yàlla yàlla guddal fanam ne leen amin ma ne ko loo xam ci thème bi mu ne ma man xamalu ma ci xam mooy jagleel yàllaa koy def ci nit ku nanguwul jagleel mooy nangu loolu yàlla kon lu yàlla def ci nit yow da koo war a nangu ndax yàllaa wala déet C'est entre le créature et le créateur kon daa am lu yàlla jagewoo ba jagleelu ko li yàlla jagewoo nak am na koo kenn amu ci dara daa am benn pont bu dox ci digganteem ak doomu aadama yi te pont boobu mooy dee waaw yàlla li mu ba mu am limite at ku mënti doon at koo mën doon dee ba dee mii rey dee fa la yem moom day dee nga jéggi pont boobu nag dugg boo jéggi rek foog nga taseet nag sangu-sang yi géeru géer ñi lingeeru lingeer mu hëmmatu ku bëgg yeneen bi la ko si mu doo avancé doo ginnaaw amul ku mel ni moom ci jagleel léegi nag moom la ñu wax war a wax ay jagleelam mais ay jagleelam nag daa ami façon bokkul day am jagleel jagoo ci biir jagoo bi day ànd jagoo ci biir jagoo bi ñu jagle ko ci biir jagoo ji am ñu ko jagoo boo ko jagoo ci biir jageel nag indi indi ay jag nga dagoo ko muy tax nga jag yow doomu aadama bi waaw te gis nga bu jagoo bi amul nga jagoo ko ci jagu yonent bi doo jag te bu yàggee danañ na la jàkk xam ne yow amoo ci jagoo rasulullah léegi nag moom yonent bi ay jagam dafa am boo demee ci benn téere bu ñu naan ifaadatu ahmadiya wala jawaahirul maani boo demee ci salaatu fatiha salaatu fatiha daa am baatinu baatinu baatin yonent bi moom am personne noonu la mel ci biir jagoo bi daa am ay pàcc yu ci am benn bi bi ci njëkk mooy buñ ko ko jaglelee ci biir avant muy nekk yonent loolu du tudd jagoo imaam irhaasaat lay tudd yenn ñi jàng siira bu ko jékkee am 40 ans day doon mujisaat léegi bu jékkee mujisaat ci la am lu làqu moom la ñuy wax karaamaat karaamaat noonu nag mbuus mi daa bënn ci la nitu yàlla yi di fort nga génne ko moom it mu am benn robinet bu mu génnee moon al sharafa muy tedda nga moo tax ku yàlla jagle da ngay gis foofu yàlla defal la teraanga moo tax am na ñu yàlla bind ñoo xam ne duñu torox ba mukk moo tax boo demee ca borom téere ba nuurul muhammad aw anwaarul muhammadi waaw data am lu mu ca wax dana fi ma qasamu llahu nabi sallallahu alayhi wa sallam min al mujizaati wa farrafahu bihi ala faa'iri al anbiya'i min al karamati والآيات والآيات والآيات والآيات البينات والآيات آياته قبله آياته معه آياته بعده آيات الآيات فمو أم ويجد من تجبير ñu ne la loo gis yàlla du koo séddale waa kon yonent bi jagleel bi nan la demee dans la vie tout est fi ngay juddoo fi ngay màggee fi ngay màggatee ak fi ngay deewee ala kulli al ba ila yawmi diin doomu aadama du génn ci loolu jagleel yi yàlla jagleel nag moom it daa ñëw séddali ko moo tax boo demee ci téere bi ne amma qasaa'isuhu tanqasimu على أربعة أقفام الأول المجيبات والثاني مما مما مما يحرم عليه والثالث المباحات والرابع من الفضائل أو من الكرامات أو لكن نك نينتي نك دانا في خجام دو في خات نك تابا نغي دم دا ني كوي ماي ني جوخه ñaar ñu dé ci ñaar ba deuwel واو نك تابي لورما تخلو مو دغال نك في 23h30 لن دان arrêter bëgg wax nak bu mu la tax wax ba tax na nga wax heure bo xamanteni nit ñi duñu ko bëgg waaw dersul khalil ay lu kon ñaar rek lañuy jël légui nak yi ñu ko jaglé dafa am yu am solo Yo xamanteni mom farata la ci mom mais sunna la ci ñu am na yoo xamante ni dafa araam ci moom mais lu ñu sib la ci ñun am na loo xamante ni lu ñu sib la ci ñun waaye moom dafa araam ci moom am na yoo xamante ni ci boppam lu ko neex def maanaam dagan na ci moom bu ko neexee mu jàpp bàyyi mais ñun ci boppam dafa araam ci ñun ñu bari nag dañ koy jaawale am na boo xamante ni nag al ibadat la واو الا عبادات لا جامو يالا ني الاول موي بان وتوح والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قل والاخره خير لك من الاولى fatarde tardé bo continuer da nga mujj tarxiis te wax ja wala nga def orsi fofu rek fofu rek motax tari bi amna ñoo xam danaan waa wa jangi guddal di tari fekk guddaluñu da am fu mu yam kéro tafsir abdurrahman ngay def nako mo ngi tari kaaha muy dem ñu naan am nokal xel may neex man leen déedéet da am arrêt daa am arrêt wala déet dafa am arrêt dafa am are boo xamul nag da nga naan daa tari tariwul de parce que daa am oto yoo xamante ni destination rek lañuy wàcc am na yoo xamante ni fu ñu neex wàcc mais am na yoo xam bu ñu déparé kenn dootu leen téye ci arrivé bi rek la ñuy taxaw wala déet noonu la deme léegi nag Wadduha la Wadduha bi parce que yor yor farata la ci yenen tibi mu def ko du ko bàyyi mu waye ci ñun ngeneel la xam nga yonent biñ ko laaje waaw yow farata la dang ko wara def bis bu ne waye yow mi nga xamante dang ko bëgg di def wa mais boko defé ban jariñ na ci am ndax comprimé bokay nan dina am lu la jall mu ne ko xam nga lan la ci jublu mu ne mo ngi ci jublu moo ngi ci jublu asalaatu duha tajlibu risqi képp kuy julli yoor yoor doo ñàkk xaalis waaw yonent bee ko wax boo demee ci téere bu ñu naan tadul xaafilin da nga ko fa fekk kon julli ndekete yonent bi faratal ci moom waaye yow jullit bi ndekete yoo dalay amal lu mu lay defal muy lan yàlla dalay defal lu mu néew néew dina la jariñ muy xaalis waaw beneen bi ci tepp mooy ban mooy salaatul layli farata la moom ba muy war di di naafila naafila ga ba ba muy newi ci moom waa lu tax waaye farata la ci moom a tax moo tax la guddi yenent bi faratala léegi nag lim bi moom da ngay dem ci risaala mu wax la diggante fukk ak benn ñaan na fukk ak ñett beneen bi ci des mooy witr witr mooy lu tóol moo tax boo demee ci wal fajri wa layaalil ashri wa safi wal watri mufassiruna yi dañ ne yàllaa ngi waat ci wal fajri ñenn ñi ne wa safi wal watri yàlla ngi ci jubli safa ak witar ñenn ñi ne déedéet yàlla day wax lu pair ak impair day wax ñaar ak benn am na yoo xam ne benn lay doon am na yoo xam ne ñaar lay doon léegi nag fii la suñu sëriñ Cheikh Ahmada Tidiane keroog bi mu gisee Cheikh yonent bi daa waxtaan ak moom ne ko damaa bëgg ci biir jëf yàlla yi ngay jëf ban moo ci gën a foor ci jaamu yàlla yonent bi déy ne ko ne ko jëlal safaak witar mu dugal ko ci biir wér di moo tax safaak witar taalibe Cheikh lu mu doon faratala bu ko deful nag ah daa am lu mu koy jangee te lim koy jamee mooy lan ñett jëwratul kamaal mbokk yi ndax yéen a ngi dégg waaw ci waxtaan woowu la amee moo tax Cheikh jël safaak witar waaw jërëjëf waaw kay kon c'est très nga bàyyi xel kon taalibe cheikh bi julli ko da war ndax da am njariñ yu nek ci bir benen bi ci dess yonent bi farata la ci moom almusaabiratil abdu wa in kasura adaduhum farata la moom yonent bi muy muñ ndonte noni da bari déggal wax ji ngay muñ ngay muñ yonent bi farata la muy muñ ndonte da xami nonam ak lu ñu bari bari day muñ léegi nag nga indi mu xaabalaat bi waaw lu waral kon bu dee jullit bi yonent bi farata ci moom léegi jullit bi lan nan la war a nekkee ci moom sunna ak lu ñu si jullit bi bu dee mbokkam moo bokk moom deret la mu xam ni noonam la da koo bañ naturellement sunna la ngëneel la ci boppam moom ngëneel la ci boppam mu muñ ko ànd ak moom ndax mënul tàqali moom moo tax sa noon bu dee sa mbokk la yiw la ci yow muñ ko bu la taxee jug dem feneen dangaa mi noonu te am na noonu yoo xam ne bu dee sa mbokk deret la mënoo ci dara mënoo tàqali ñoom ba ilaa yu mujj lu xew yeneen ànd toog te xam nga ko yow moom bu sañoon du yow bu sa ñoon du musa yow te yow xam nga ko mais mënoo ci dara te bu xew jotee yaay toog moom nekkal ko bu dee yonent bi farata la muñ ko bu fekkente ni nag yow jullit bi la bu dee sa mbokk la muñ ko bu fekkente ni du sa mbokk nag ashiddaa alal waaw waaw trop bon tu deviens bonbon waaw bu dee ko xam te ni yow wóor na ni du sa mbokk ba pare noonu la amal sa fulla ak fayda bu dul loolu da ñàkk fayda waaw bien sûr yaa moom bokk leen dara nga koy sagal moom fu mu fekk de amal fulla taxawal amal fayda Muhammad moo tax ñu ne ko ashiddaau alal kufaari waaye nag ruhamaa u baynahum taraam rukkaan sujjadaa ñi ngay julla nag ñi ngay warandoo ñooñu nag lu mën a xew rek àndal ak ñoom ci nga nooy nekk moo tax am na yoo xam ni du ñàkk fayda la fulla la maal mutakabbirina ibadatun dégg nga de ah, yow mi nga xam ne dangaa ñëw fekk ñuy rëy rëylu di wane seen bopp mais nag yow amal ful la ah, bu ñëwee toog ci kaw toogal ci kaw mm-hmm. waaw waaw bu dee fauteuil des na fa bu ko deful abbil siis ñëw toog ci wet ga boo ko mënul taxawal ba ñu indi la siis waaye bul dem mukk di toog ci suuf kon yenent bi noon des koy muñ moo tax noon daa baax de noonu ba am na ñoo xam ne tey jii noon a tax ñuy sonn de am na ñoo xam ne tey jii a tax ñuy la de am na ñoo xam ne noona tax ñuy sikkar de am na ñoo xam ne noona tax lu ñuy def ñu sonn ca tuba bàyyi mais bu doon ñoom ak ñoom la rek seen néeg du ñu ko den dañuy tëdd rek mais wax yenn ne wax te gor am na loo xam ni sa der bu ñu ko tegee wallahi doo mën a nelaw beneen biit farata la ci seydina muhammad xadaa ak man maata musliman mu'siran waaw as bàyyil xel ni imaam bu ñëwee ñu ne ko ku amee bor imaam ñëwal wala ku mu amee bor ah, bu dee yonent bi faratala bu dee kooku amu ko mënu ko yonent bi da ko war a fayal ba lu ñu koo jullee da koy gàddu moom Seydina Muhammad des na yeneen dañ koy dagg foofu léegi nag ñu ñëw ci mimma xarama alayhi xassahu nabi sallallahu alayhi wa sallam wa tahrimu maaluhu raaxihatun kariha kasuumin wa basalin li tawaquci mujiil malaika والوحي فرات الله تي يوننت بي بو خيي سبا با جولي جمعة دي واجو امام ني جوخ كو صبلي مو ليك ناخ امنا ньо خامني بوج ناي صبلي بو ньоرو مو ليك لا اور جولي جمعة جوت يوننت بي تي بوبام حرام نا ماي دوم جمعة interdit du ndax daa war a xeeñ lu neex warul dem si interdit moom yonent bi tere nañ ko dee ñun la nag boo demee ci asmaawi yu laa wax de jaru sax sori moom dañ ne moom moo yëkkuru ah jërëjëf waa Ndar waa Lansaar jërëjëf dëgg kon bàyyi leen xel kon ci yëkkuru bi saa su ne kon jullit buy dem jumaa mais day day sañ-sañ mais yow heure boy dem xew nga sol waye bu demé juma yére bi ngay sol kër xamul mu do ah ah yow dal boy gam rek ah atom si heure boy gam wax ma ngeu nga sol ba sañse waye boy julli juma dañuy mel ni ndax ki mo nga wala mo wa ah? da ngay ñu ci juma ji fekko da nga naan waa kii tafsir abdourahmane gay la waye bu solo ba tok ni ba talal baram nga ne ah. dégg de dégg de araam na ci yonent bi wa tahrimu nikaahi man lam tuhaajir ci jamono yonent bi ña gàddaayoon képp ku gàddaayul woon yonent bi waru ci woon a takk soxna araam na ko ndax daa am ñu daan jóge màkka ñi demoon màkka jóge màkka dem medinatul munawara mooy ñi nga xamante ni dañoo gàddaay bi mooy alhijra ñi gàddaayul nag yonent bi araam na mu takk ca moo ngi mel ni alaaji ahmad boro fu mu jógee gàddaay du kasaas yaa ngi dégg ñëw fii Cees araam na ci moom muy takk Cees kenn moom Seydina Muhammad gis nga affaire yi waaw araam na it ba léegi ci Seydina Muhammad tahrimul kitaab yi muy takk koj téere araam na ci moom araam na muy takk ngeen baal ma ci nasaraan ak yahudiya xam nga bu dee nasaraan la sharia may na la bu fekkente ni góor nga muy jigéen yow ku jigéen ki mën nga koo takk yow ku jigéen ki mën nañ laa takk di moyes waaye nag bu dee yonent bi araam na du takk koj téere waaw mooy mooy catholique wala yahuda wala walla wala nasaraan ah. Mm-hmm. dëgg araam na it ci yonent bi mu toog dégg wax ju ñaaw wax ju ñaaw mu téye ci làmmiñam daa war a wax daa war a intervenir sur le champ bu déggee ni am na wax ju ñaaw ju am juy waaj am ci réew mi. am ñaar ñuy dégg ku ci nekk di wax loo war ta wax sa diggante ak moroom yonent bi day jug taxaw ñëpp dégg comme le président de la république ni muy defee 4 avril ni muy defee 31 décembre nga taxaw wax yonent bi loolu lañ ko digle heure bu noppee rek am lu daal ci kaw bii nag moo ci gën a yéeme bii moom laa lii rek waaru yonent bi araam na ci moom ñu ne jug ñu xare yeneent bi sol sol mbubb kanoon jeex na bu ko solee xare rek xeexi rek dana wax de moo tax bala mu koo sol man ko yonent bi bala ngaa sol yéen war nga xool bu solee teneen jeex na xeex rek foog am ñu dee foog am lu xew waaye nag boo demee ci biir téere ba anwaarul muhammad yi mune ne lu atte bi yàlla da ñëw yàlla yebal jibril ne ko e simil seyere do xex kon yonent bi du xex mais bu dul loolu day xex mu neex day xex mu naqari day xex motax tax yére koomam bi heure bu ko gars ne gisee ñun ah am na la xam mom Seydina Muhammad jambar jo sol na mo ngi jël waaw waaw bokk na ci wàllu fiq ndax tere nañu boo demee ci Laxdari rek laa wax tere nañu jullit bi mu am janaaba di dugg ci jàkka bi waaye daganal lañu yonent bi al mukk fil masjidi junuba dagan na yonent bi bu gisee mbaax terewul it bu gisee bu luñ ko xetee sax bu yàlla bëggee mu gént janaba du moins bu amee jana ba yàlla may na ko mu dugg ci biir jàkka ji toog fi te wàññi ko daal waaw waaw yenent bi yàlla may na ko bii moom xam naa ni moo mooy indi coow ci réew bii war nikaaxu bilaa waliin wala shahudin yenent bi may nañ ko mu takk na te du laaj papaam du laaj yaayam du laaj kenn moom dong ci néeg bi mu ne ko takk naa la mu ne ko waaw mu ne ko kaay yeex na sama soxna nga ah waaw sànq ba tey maa ngi wax yaa ngi doog wax neex na waaye beneen a ngi nii bu doy waar wa jawaasu duxul makka bi xayri ihraam xamoo ni makka benn jamono la bu ko weesoo dootul nekk makka aj makka déedéet umra moom mën ngaa def lu la neex waaye ak màkk benn jamono la benn waxtu la bu weesoo waaye yonent bi déedéet moom amul problème 24 heures sur 24 déggoo ma de heure bu duggee caabi bi moo ko yore lu ko neex dugg te du ko wàññi dara dañ koy gàttal waaw waaw waaw kay ah alaaji Alassane ah, ñoo ngi leen nuyu ci turu njabootu alaaji Babacar Seck yépp waaw yàlla nga dellu màkka waaw maag yow ñu ànd waaw kay dégg ma dem premier vol nga dem septième vol waa ñu dara bokk na ci nabi Mustafa bu meree da mer ñu koy mer mais yonent bi may nañu ko mooy bu meree arte moo ngi mel ni merul heure bu meree wax xam ndax boo demee ci boo demee ci këy luxa yi dañuy wax ni képp koo xamante ni daa mer jàmbaar dëgg newul ci ki am doole di kar doomu aadama yi déedéet jàmbaar mooy ki nga xam ne bu meree téye boppam moo tax yenn saa yi nga gis nit ñu naan dafa tàng dafa mer déedéet ñu ne jàmbaar newul foofu jàmbaar dëgg mooy koo xam ne ñëpp dañ koo tooñ mu toog muñ mën a wax war a wax waxul dégg nga jékku wax war a wax waxul su waxoon am dëgg te it bu waxoon ñëpp ne ko gongo nga am doole mën koo dóor ba ñëpp xam mën ko ko dóor nga daw yenn saa yi nga toog ci bërëb benn waay joo xam ne xamul dara mel ni mbay faal njigéen di wax amul xam-xam yow nga am xam-xam na nemm muy wax di balbali nga ni dëkk ñu naan ko yaa fépp xam-xam yow nga ne nemm mu indi masala daanu bu yàgg xamoo foo koy réglé moom kon yonent bi bu mereeg bu meru attaam noonu la mel léegi nag pour bañ a guddal bokk na ci ngëneelam yi moom yonent bi bi mu juddoo ak ni mu juddoo ak fi mu juddoo ak ni mu amee ak ni mu neexee Nabil Moustapha benn dong laa ciy nettali joxe micro bi lahu xablal wilaadati moojisaatu taraha umuhu duna manuni foofu nga yemoon du foofu nga yemoon ma eggale ko <laughs> si waaye tam dëgg amina nee na bi nabil Moustapha juddoo daka daan teg waaye bu ko tegee dem ca biir néeg ba day jékki-jékki dégg muy waxtaan يتحرك بتحريك الملائكة واو واو ذكره ابن سبع والقفائف نينا أبامي أم جروم نياري أتبير برسوبي أمينا نينا دمي نكي تبير نيك بي مانام نكي تجاكا جي نينا دمي توك دي ديگ ينن تبي دي وخ وخ جو لير لير لير نكتة أي ملاك لي وخال يلا ما ينكو يلا ما ينكو مم نبي المصطفى ca la seex saadu ab yi waxoon ndax Alioune bind na ci eh, ki ma inspiré mooy tafsir Abdourahmane Gaye keroog fukk ak benn yi mu doon wax ci fukk ak ñaar yi mu doon wax ci xasaa is yonent bi ma ñëw di wër kiir yi bañ a wax li mu wax ndax bañ a wax rax li muy wax ma jéggi ko di gëstu beneen téere dem ba ci seex saadu abi moom mu jël su lay déggu ma la xussa nabiyuna bi asratil xisaab benn bennal ko dañu koy jàngale pour nit ñi mën a xam ngëneel yi xussa seex saada bi nee na sama maam rasulullahi moom la yàlla muy fukk nga xam ni amul benn sëriñ muy sama sëriñ ak seen sëriñ amul ku am fukk yooyu ku ko am nag nag ma ko wax lu mu njëkke daanul gént moom yonent bi daanul gént xam nga lu tax moom daa juddu rek doon li mu doon lam yaxtalim fa la ñu toll waxal lu leer lam yaxtalim xatt wala lawu bilaal lam yaxtalim xatt wala lawu Mustafa dafa ànd ak Jibril alayhi salaam ñu riñaane Isra wal Mi'raj bi mu demee ànd ak moom dañoo dem ba ci biir ñu dugg benn benn magasin bu bees tàq benn magasin bu bees tàq mu ñëw ubbi ko am ci benn nit bu mu gis ku rafet lool jekku lool taaru lool yonent bi yéemu ne wax mais mais mais mais jibril jibril kii mais mais wax ma kii kan la mais kii rafet naa mu ne ko xamoo kii mu ne ko xaw ma ko mu ne ko xamoo kii mu ne ko xaw ma ko mu ne ko kii yow a muhammadu rasulillahi wal ardu yaxruju minhu tamtari mu ne ko waaw kon lu tax wàcce woo leen bii indi beneen mu ne ko yow sa takk ndeer yow seydina muhammad moom la ñu indi ci suuf moo tax yow amoo taq ndeer dara du la tiim yow rasulullah wal ardu ma Seex eh! Sadoo bi ne lépp lu Seydina Muhammad jëfandikoo bu génnee yonent bi génne ko suuf da koy wan du ca yam foofu day xeeñ parfum day neex mu ne kenn du Seydina Muhammad sana bi nee tere nañu ak bu weñ du mus a takk ci yonent bi yonent bi heure bu toogee lu mu mën a takk takk takk takk takk ak lu mu takk takk takk weñ ñi ma wu koo jige moom Seydina Muhammad Eh! nabil Moustapha tey buñ doon wax dañ naan nabil Moustapha ndax nit la du nit Muhammadun basharun laakal bashar waaye fii wér na ne lii mooy wane ni yonent bi yonent bi ci boppam ni muy gisee kanamam noonu lay gisee ginnaawam jarul muy gersu ndax yàlla may na ko amul benn sëriñ bu ko am loo teg eh! nabil Moustapha bokk na ci jagleelam heure bu tëddee nelaw bu yeewoo njàppam toju nga ne ma lu tax ma ne la tanaamu ay naa day tëdd di nelaw waaye du nelaw ndax xolay nelaw mbokk yi waaw xamoon ne xolay gis xol ko ci xol boole xol jëmale ci xol lu fees ci xol turu ci làmmiñ yonent bi nag xolam ci boppam danaan jàkk ñu naan nan danaan jaamu yàlla di bàyyi ko di am ay battement de cœur ngir lan sàbbal yàlla lam yatasaawu xattin wa hiya saabia eh Cheikh Sada bi nee na maa ngi bëgg a wax septième bi pour mu jeex Cheikh Sada bi nee na nabil Moustapha Moussa Obali waaw óbbali waaw xam nga lu koy waral nelaw dana ko wane xiif dana ko wane waaw boo lekkee ñaari ceeb yu bokkul moo tax boo demee ca xilaas si daal maa liñ ne dégg nga de dégg nga de daana war daana war déggoo ma de war mooy yéeg tey jii boo koy firi da ngay bàyyi jamono yi ah? <laughs> maa ngi ñëw imam damay bañ a dugg ci beneen gaam ndax xale yi damay bañ ñu dugal ma ci loolu nga xam ni tey bugguma caa jaar eh c'est sama bi nee na muhammadu rasulillah ci jamono ji boo koy firi da ngay bàyyi dawaab doo ko firi doo jël giléem de eh doo jël giléem xam nga lan ngay jël kalandoo ngay jël yonent bi musta du ko kalandoo kalandoo ak lu kalandoo ba xat-xat du paar day egg fa mu te muy gën a gaaw loo Kédougou ci jamono ji da ngay dem Fouta ci jamono climat bo xamanteni ndax le climat est composé en trois parties l'alizé l'harmattan et la mousson Eh, eh, eh fireeguma ko xaaral ma ñëw yonent bi xam nga Cheikh Sadou Abi lu tax wax ci garaaw dane taat maanaam ñaar mën a am danga may fekki wala ma fekki ki nga bëgg a fekki yaa tànn fekki ko maanaam te jii suñu président kan la monsieur le président l'excellence monsieur Macky Sall bu bindee lettre na mbay Mbaye Fall Ndiéguène Serigne kër Ndiéguène mala la ci bi audience yalla ko yalla def ne pas amin wa paste fi ngi de Le ngi de mu lettre bi ne kay mala soxla bokul ak bind lettre man monsieur le président ah, je suis le je fils du khalife je veux te voir parce que <laughs> il y a des prières qu'on doit prier ensemble bokkul ker gi moo daan fekk yonent bi dakaraan bàyyi ba mu naaj ndax da yàkkamti moom da daan ànd ak moo tax loo gis yàlla da koy def jagleel gis nga jagle bi yàlla bind xol bala moo mën a bég yàlla moo ngi jagle xol ba moo gën a mën a bég ba kontaan moom xol ñu laaj ko kan nga mën a bég mu ne bi Seydina Muhammad juddu nga toll ci weer wi sa xol di seddu guy mu ne yow am nga jagleel waaye am na ñoo xam ne buy weeru yéen jotee jeex na maa la wax loolu du ñu am jàmm ah ah du ñu am jàmm maa la wax ni ak comprimé bu mëntu doon du ñu am jàmm kon nag julusoo julusoo يعلو mën koo eggal ndax ñoom ñaar mën nañoo salli alayya mas'an wa sabhan dégg nga ndax boo toogee boo koy firi mën ngaa jël ñaari bëy di firi ko benn fëy ndax julusa sabhan julusa mas'an wala déet yaalu julusa wala déet waaye nag bu amee yaalu ba salla mooy foog nga julli ci yonent bi kon toogaay bu gën comme la Seydina Seydina Cheikh waxoon ci xaayatul amaan yi nee na bépp bépp jullit bu jug taxaw bu kenn taxaw de bi bu taxaw yonent bi Cheikh mu wax ko yow de dañoo neexoon a gis ngeen maa moom waaye maa ko dàq nee ngay toog ne bismillahi rahmaani nga wax ñetti salaatu ala nabi nee na kenn dootu bindal bàkkaar ba kuram ngay jug malaaka bi danaan tàpp taxaw nee na boo toogee nga booy toogee ne bismillah rahmaan rahim def ñetti salaatu ala nabi kenn dootu la bindal bàkkaar ba kuram ngay jug nee na malaaka bi day mel ni dañ naan ko bloqué ba tirim dootul daw waaw wax nga dëgg nee na lu neex ah kon bu ko defee rek nahdi ilayka ya rasulallah damaa bëgg comme ni ko sama waajib defee ku nekk ka nga dendal jox ko loxo nga xool ko reetaan ko moo xam da ngaa moo xam da ngaa fange moo xam da ngaa nga ree ko mu ree la ku bëgg Seydina Muhammad yëkkati sa loxo dégg nga nahdi ilayka ya الله لخيكم رسول الله لخ تكون yaquudu des na womma naa وكل بيت وإن البديع به من يوم تكير تكير تكير أنواتك نح أمل خير ديك سخالي خير الله دون خير الخلق كالعدم من كالعدم